waaleykum salaam wa rahmatulah. pause bu am solo ci wàllu ceeb. dëgg yàlla ceeb ñun daan ko gis ni des fois sax dëgg soxna si tamit da koy def ci ndox mi di ko naan. Mhm. moom doon daf koy utiliser mais xamuñu ne woon njariñ yi ñu ciy wax ne am na ko ak it mën na koy utiliser paare ñu da koy def ci ndox di ko naan. Mhm. waaye am na yeneen njariñ yu ko mën a utiliser moo xam huile bële moo xam sunguf bi. boo mhm. xam sax yeneen yoo xam ne di wax ndox mu am solo lool. mais dafa am loo jeexale lu ma bëggoon a ñëwaat tuuti moy hmm. walu épices hmm ma ngi dégg do nga wax lu xorom ñun suñu suñu suñu suñu la lajum yi fi nga xol yoy di gëru tamé hmm yow nga ne loolu la wëree su ko sànni kan bu ko kenn sànnee dé voilà bu bu bu bu ko kenn euh, sànnee bi hmm. parce que loolu mënees na ci defar épices hmm. léegi épices boobu ñu ciy defar d'abord nga ñëwalaan ci nan lañ koy defee rek. Mm-hmm. Euh, ndax épices duñ ci defar ay ceebu jën kese lay dem. maanaam mm-hmm. jën lay àndal. Mm-hmm. ak lu xeetu jën wala day nañ ci defar boo xam ne nañ ci ay leeral. Euh, waaw macha allah Serigne Seye comme ni ko <laughs> miin nañ ko ci yow <laughs> comme niñ koy waxee rek euh, mooy épices yi comme ni ma waxee rek xollit yi bu ko kenn sànneete ndax boo xoolee sax lépp luy légume wala lépp luy sax fruit boo xoolee li ci ëpp vitamine maanaam mën nañ ne vitamine yi mu ngi nekk ci xollit bi ndax euh, bu fekkoon sax suñu légumes yi bio la soo koy togg tey sax su la neexee par exemple li nga xam ne mooy euh, kii bi nu mu tuddati sax carotte bi mu nga ko togg te doo ko xolli parce que vitamine yi mu ngi nekk ci li nga xam ne moom mooy pot bi mais euh, comme par exemple buñ ko bëggee def épice comme ni ma ko waxee rek. soo raxasee say légumes ba mu set boo xoolee weeral ba mu wow épice boobu mën na dem ci yàpp que mën na dem ci jën par exemple tamit épice bi tey ji bu fekkee koo xam ne da nga bëgg a defar épice boo xam ne uniquement pour yàpp la wala uniquement pour jën la tam moom mën na nekk léegi li différence bi euh, sooy defar épice bu jën bi ak bu yàpp bi épice bu yàpp bi mën na ci def persil chinois wala so dangay am sa ndawal par exemple tey suñu ñëwee ci épice bu yàpp bi yii ñu wax ni yëpp ngay jël boole ko ah léegi fekk tey ji am nga sa morso ginaar wala sa bënn ginaar léegi da nga koy jël daal di koy euh, baxal si ndox bi lu toll ak dix minutes soo amee par exemple bu dee pooju ginaar bi la wala dënn wala lu mu mënti doon hmm, da ngay euh, raxas ba mu set nga daal di jël ndox def ci xorom nga daal di koy baxal lu mat toll ak dix minutes après nga soo koy baxal mën nga si defaale tuuti laurier nga daal di génnee yàpp bi seppi ko soo ko seppee nga daal di koy euh, sefet soo ko sefetee noonu nga daal di koy weer léegi soo ko weeree moom itamit ba mu wow nga daal di ñëw boole ko ak li nga xam ne moom mooy poivron yeeg yooyu yëpp nga weeroon daal di koy wol donc loolu day nekk épice boo xam ne uniquement pour yàpp la ndax yenn saa da nga gis bouillon ñu bindal la lii euh, épice u yàpp la donc noonu la ñuy defare li nga xam ne moom mooy épice u yàpp bu fekkee amoo sax tamit exemple Euh, yàpp xar la wala yàpp nag la noonu nga koy def tamit dangay ngay ni ku koy baxal après léegi soo génnee nga daggati ko ay morceaux yu ndaw ndaw nga daal di koy weer soo ko weeree ba mu wow nga daal di koy booleeg euh, say oignon vert poivron ak yi ñu fi tudd yëpp mu nekk li nga xam ne mooy sa épice yàpp léegi mën nañ ñëw ci épice boobu tam ba tey ci boo xam ne tamit dafay dem si jën léegi par exemple mën nga jël crevette crevette bu wow bii nii hmm? léegi moom ngay jël tamit daal di koy euh, boole.

Euh, yàpp bi mën na dem ci lee mën nga def tamit épice boo xam ne amul yàpp amul crevette bi nga xam ne dafay dem ci yàpp dafay dem ci nga xam ne euh, si jën te gis nga li koy composé déjà lu naturel la li ngay lekk di nga xam euh, lan la ba pare di nga ci am wérgu yaram ba pare goût bi lay jox nuróowul sax ak beneen épice goût bu naturel goût bu neex ndax yow sànq won naa la fii nii li nga xam ne moom mooy épice bi am na suñu benn cliente boo xam ne dañ ko jaayoon mu jëndal ko seen waa kër mu dem ba benn jour mu woo ma téléphone mu ne ma Seyda yow épice bi ma jaayoon est-ce que nekkul boo xamante ne ñiy defar ci kii ma ne ko non non mu ne daf may xeeñ comme bëgguma leen defal publicité comme bouillon yi nga xam ne moom la ñuy defar si usine ma ne ko li ko composé yëpp mooy lii mooy bouillon yu naturel la ma ne ko woor taxal mu am xet bi dana doore te dana neex yow xam nga si dara mu ngi noonu <laughs> kon mën lañ defar daal suñuy épices naturellement. fu waay nekk rek mën nga defar say épices yooyu waaw man épices yi dama koy defar pour sama kër dama koy defar tam diko jaay tay ji eh, ku ko soxla rek so ma wowe si numéro 76 538 1433 euh ding ma jot fo meunti nek parce que épices yi man mang koy livrer fune ma sha allah euh aw ma ci ay clients yu bëri bëri bëri bëri mais tamit quand même maa ngi ciy livrer ay mbokk yoo xam ne ñu ngi nekk ci ay bërit daal yu fasantiku te ñoom itam buñ ko utiliser macha allah euh, dellusiwaat nañ beneen yoon euh, pour di ko di ko lii parce que gis nañ ne sell na neex na te am na gu dana doore dana neex macha allah daal. Mhm. daal mën nañoo wax comme sunu xeeti lu jub yi mën nañu ci def épices yu neex. mën nañu ci def épices yu neex. mën nañu ci def épices yoo xam ne mën naa ci lépp. Mhm. waaw mu ngi noonu. yooyu tamit yaa mhm. a a. Mhm. wala ku la contacter tamit. incha allah dina dina a jot daal gisaanati daara cinq cent bi gis ngeen ko mooy numéro youtube bi suñ ci woote tamit dañ leen fexe ba jokkale na ndax épice bi bañ naa ko le bon goût lañ ko nah, allah Masya allah benn la épice boobu la parce que man su ma defaree benn produit man dama koy testé ba pare doo koy jaay waaw dañ koy ba pare ndax am na ko xam ne nee na moom ñoom seen kër presque njël lu mag lañu am mais mu ma épices yi rek lay togg parce que am na lépp lépp lépp li ñuy def ci biir cin rek mm-hmm. moom composé na ko du laaj du soble du jinjeer du xorom polle du jar yooyu yëpp muscade yooyu yëpp mu ngi li xam ne moom mooy épice bi boo ko defee si jën dafay neex boo ko defee si yàpp it dafay neex mi ngi noonu soo ko jëlee tam suy ko noon ci lekk dafay neex parce que euh, buñ ko séché ba pare après dañuy ñëw euh, xaw ko torréfier tuuti mel ni lu ko xaw a saaf

créé ay togg wala ay ñam yoo xam ne yu naturel la moo la ci loolu ndax da am mhm. moom dafa am rek maanaam lan moo la motivé ci loolu daal euh, soo gisee li ma gën a motivé ci li nga xam ne mooy wàll produit naturel yi euh, man damay damay bëgg du xam-xam boo xam ne dama dem jàngi ko mais li ci ëpp man dama bëgg di gëstu damay gëstu lu bari par exemple man dama am problème allergie dama am problème allergie li nga xam mom moy euh, gluten moy euh, par exemple farine blanche bi ñuy kii mburu bi dama am allergie bima ko amé donc xam nga nit ki mëno tok té do lek ma xol xol chaque fois suma ko lekkan daf ma daan ay wala sama yaram bi di xasan après mané bon pourquoi pas waruma mën a def recherche yenen farine yi léegi bi ma ba gëstu ba gëstu ba xol ben farine blanche bi ñuy lek ni amul ben ndëriñ parce que amul lén lu mu lay apporter ci ay ay nutriments amul amul benn benn benn benn nutriment boo xamante ne am na ci voilà de waa dinañ si ñëw lu tax parce que boo xoolee blé bi déjà li nga xam ne moom moo ci am euh, mooy indi li nga xam ne moom mooy par exemple euh, li ñuy soxla ci suñu yaram loolu dañ koy dindi dañ koy dindi ba am farine blanche par exemple bu fekkee farine complet ah kon loolu nga xam ne am na njëriñ mais bu fekkee farine blanche bi déjà farine blanche bi euh, da hmm. fay beuri li nga xamantene mom moy mooy euh, par exemple gis nga diabète bi nga gis ni farine blanche bi fay yëkëti li nga xam moy mooy taux euh, ki bi glycémie bo amé problème ballonnement hmm. éviter farine blanche parce que bokk na ci farine yo xamantene da fay indil ay ballonnement hmm. mën na la indil ay réaction allergie parce que fa am gluten kon ci lool la xol xol xol mané pourquoi pas du ñu essayer yeneen farine parce que am nañ ay farine fii par exemple comme par exemple euh, li nga lekk noonu sànq euh, kii la cake la mais cake bi amul benn benn farine boo xam ne dafa am gluten farine dugub bi lañ ko defaree farine dugub bi lañ defaree li nga xam ne moom mooy cake bi mën nañ defar li nga xamante ne moom mooy mburu ci farine dugub bi mën nañ defar ay euh, nu mu tuddee par exemple ay croissant yi nga gis nii mën nañ ko defar base bi farine dugub bi am nañ li nga xam ne moom mooy farine mboq farine mboq bi tamit mën ko utiliser mën utiliser tam keroog dama défar li nga xamné ay biscuit mais la la ko defaree farinu ñaam bi mën nañ defar tamit ay mburu wala ay beñe li nga xamné ne moom mooy euh, patate douce bi moy patate bi nga gis ni ñukay koy ba pare dafa am njëriñ lool sax li nga xamné ne farinu bi euh patate douce bi wala farinu dugub bi su tu dugub dugub dafa bëri ay ferñeent gis nga soo koy lekk do doo constipé doo hmm, serré voilà kon loolu moo tax man problème allergie bi ak genre men noonu moo tax ma si doon def gëstu ba xool ni que mën nañ remplacer farine blanche bi ak li nga xam ne moom mooy euh, yeneen farine yi képp ku bëgg wér gu yaram éviter farine blanche bëgg nañ mburu lool ba pare mburu bi li si gën a dangereux mooy mburu bu bees bi ñu bëgg parce que gis nga levure boobu ñu si def noonu bees bees bi muy bees noonu soo ko lekkee yenn saay da indil waaw mais boo xoolee ci baax gis nga boo demee ba ci réew tubaab yi sax ñom en général dañuy jënd mburu fananal ko ba ci suba sax ñu ñu duggal ko sa four non non non non du tawé ko boko jëlé tay ji nga taal sa cin nga taal sa gaz du moins tek sa cin duggal ci mburu bi day bees wala gis nga mburu bi soko ko non dang koy def ci mbuus nga congeler ko nga soko congeler soko gënné day bees tak parce que bu da nga am problème digestion bu difficile éviter mburu bu fekkee ni jigéen ñi tam bëgg nañ seeni peau seen dar di rafet éviter farine blanche bi, ni parce que amul amul ben ben énergie bo xamné mburu bi amal na ko kon donc mën nañ euh, remplacer suñu farine blanche bi mm. ci yenen farine yi muy dugub bi muy mbokh bi muy patate bi wala muy ñàmbi bi mm. ak am na yeneen farine sax yo xamné mën nañ ko remplacer légui tay ji bo ñëwé ci farine dugub bi ba wala farine mboq wala bu mu ci mënti doon mm. bu fekkee da nga bëgg ay vitamine bul ko ndax boo xoolee boo demee si yenn grande surface yi dangay xool ñu lay bindal ay pain de son wala pain complet waaw parce que gis nga cox boobu cox boobu noonu moom moo baax ci suñuy intestin kon tey jii booy defar sax sunguf boo xamante par exemple pour xale bëgg wala jigéen ñi nga xam ne dañoo bëgg yokk ay yaram ak genre mel noonu suñuy defar euh, farine bi hmm. buñ ko soq soo amee sa dugub sebet ko ba mu set nga teg ko waaw ba mu lii après nga dem wallu ko ci la vitamine nekk ndax boo déggee farine complet bi kon euh, li nga xam ne moom mooy cox boobu noonu dañ ko ci bàyyi ndax cox tam dafa bëri njëriñ lool sax kon loolu mooy li nga xam ne waruñu koo tuur am na mburu woo xam ne pain son lañ koy defaree cox day faciliter li nga xam ne mooy digestion day tax loolu lekk dafay gaaw rees tey ji nga boo ndekkee li nga xam ne moom mooy mburu dugub wala nga lekk beñe dugub wala gâteau bi ma la jox sànq ni base de dugub da ngay xool ne da ngay digérer facilement kon loolu mooy euh, jubluwaay bi tax ñun daal ñu gën a focaliser wu ci li nga xam ne mooy naturel papa boo xoolee mag ñu njëkk ñi lan lañ daan lekk li nga xam ne moom mooy euh, kii ay fonde cere hmm? ay ay mbuumu nebedaay ay mbuumu supame ba ci sax sëriñ say taay rek laa def gëstu bi mooy li nga xam ne mooy caxat mbuumu caxat bi amul lu ko gën a baax ci wér-gu-yaram xam naa loolu incha allah dinañ si def benn émission ndax dafa caxat voilà dafa bëri njëriñ ma may la si tuuti rek gis nga caxat bëri na feebar yoo xamante ne da koy faj caxat tey ji boo amee problème sinusite dama jël caxat bi mooy euh, kii bi noonu tige bi non pas xob bi xam nga caxat boo xoolee dafay law loolu di law noonu soo ko jëlee nga dagg ko nga daal di koy jël lawtan gi nga def ko nii ci sa bakkan day faj sinusite day faj ay mettitu bopp soo demee dama la ci may tuuti rek boo demee ci tóortóor bi góor ñi naan ay problème néew kàttan ak yooyu hmm. yow soo gisee tóortóor bi del witti rek di raxas ba mu set rek di yey hmm. wala xob bi noonu nga koy yëg parce que gis nga caxat boo xoolee même bu dee noor sax hmm. moom day continuer di sax parce que en général nga gis ñenn ñu naan boo demee euh, ci fii caxat bi sax boo gasee tuuti rek di nga am ndox parce que caxat dafa bëri ndox bari na calcium bëri na potassium ñi dëkk yi nga xam ne dañuy am famine maanaam mooy maral wala xiifal dañuy utiliser li nga xam ne moom mooy caxat boobu xob yi boo xoolee li nga xam ne moom mooy ay wàllu rein ay wàllu euh, nu mu tuddati sax ay yax yu metti ak yooyu noonu dañ naan la demal jël caxat bi di ko utiliser baax na trop lool dama la si cofal tuuti rek hmm. soo ko amee tey ji voilà nañ si spécialement góor ñi nga xam ne dañuy néew kàttan ak yooyu dañ naan la mu ut reenu caxat beeg xob yeeg ak lawtaan bi yëpp soo ko weeree ba mu wow daal di koy def poudre di ko utiliser jàmm rek lay dégg foofu moom dañuy teg suñu loxo ba beneen yoon. <laughs> eh noonu.